mbokk yi diggante Pape Ndoye bu Fass ak ki nga xamante ne mooy Jackson combat bi jeex na Jackson mooy ko dara. Euh, la ma la waxoon rek mooy dellu siwaat booy bëreeg nit da nga koy jox cër surtout nga nekk ci écurie mag bu ñu naan écurie ay ndaanaan nekk fa wax naa la ne la Pape Ndoye bu bëggee humilier Jackson boo sàgganut dana am mbetteel ci moom booy xeex aussi xeex bi ngay xeex daa war a ñor xomm ba pare munoo arbitre sifflé ngay dox di waaxu nit koo xam ne ëppoo ko corpulence ëppoo ko doole parce que boo xoolee ñaari doole yi bokkul. Hmm. doole Jackson moo gën a frais boo xoolee état wu Jackson il est au complet. Pape Ndoye boo xoolee Gamba su biir ñu ngi wàcc. nga maa la ko wax. Gamba su biir mi ngi wàcc <laughs> mais booy xeex bul dajale say tànk di dóor muy dóor xaral sa tànk am sant de gravité bu baax ba nga xam ne boo mënut gis loo xam nga jàpp ci ngemb. Hmm. mais bi ko Boy Jackson di kor di dóor mi ngi dajale ñaar tànk yi di xeex ak moom loolu kenn du ko def. li ma doon wax Moustapha Guèye numéro un bi ma gisee ki nga xamante ne moom mooy Pape Ndoye daal di tuus commencé apat am na benn moment boo xamante ne dafa saale sax daal di laajte soow xëppoowaat ko naan ci soow mi parce que mu ngi doon apat ma xool Jackson tuus tuus bu rëy bu frais avant ñoo simmee ko loolu di benn bi ñu simmee ko nga xool seen ñaari état physique yi. nga xam ne mbokk yi léegi entraînement naxatul kenn il faut s'entraîner boo leen simee ko yi day saillant ñu xam ko Pape Ndoye kenn du ko wax ni bu mu jël poids d'accord am na poids wax naa ko Moustapha Gueye mu ne ma déedéet boo xawee ëpp nit ki tuuti ñu ne la poids feeñ na léegi rapidité am dafay wàññeeku puissance bi dafay wàññeeku par rapport ak son adversaire donc xeex yi day wàññeeku Pape Ndoye xam nañ ko bu ñëwee day explosif calculé wul waa ji indiwul stratégie li mu doon indi lay indi waa ji jiitu ko ci mëninam rëjj-rëjjee ko mu daanu la lañ koy wax moom Pape Ndoye mu dem liggéeyaat entraîné il est jeune xale la na teg affaire yi daal di bër dem entraîné ji au vrai sens du mot nit ko la nit koo xamante ne la bu entraîné mu am doole bu macha allah bu am doole bu macha allah bu nga koy yàkkamti mbapat yi aussi gars yi nañuy tàmm di ci dem di gën Euh, am compétition parce que ki nga xamante ne moom mooy Jackson ba tey mu ngi dem ci mbapat yi di ci am compétition ñu koy féliciter encore une fois moom Jackson di ko wax ni fi mu teg tànkam foofu la état bi surtout état physique bi mu indi da koy xool gis Modou Lo donc ñu koy féliciter di leen jox dig daje très bientôt ci beneen numéro euh, taxaw seetlu peace